di nuyu senegal euh di contane ci sen teway ci suñu bis bi ndax nit mom bisam la am sëriñam ak soxlaam ñet yu dafa dajé tay ci bis bi ñu contane nañ ndax ñoo ngeen jall suñu kaddu fo xam ne su woon yéen du fa yegg day nekk waxu bir nekk légui génn na eh, gamu Njaasaan nak tay la ñewon ngeen fi ci préparation bi indi won ay teraanga tay ngeen ñew nak pour jël atane kàddu ñenn ñi kon nak ñu sant yalla bi moy 139e édition gabu ndiasa laaj nañ ma lu tax nga nga wax lolu ndax ndiasa ñu ko créer 1883 ma japp ne borom dëkk bi bi mu fi ñëwee premier gam moom feete na ko

di di ñu laaj ci bis bi kon nak ah ñu ngeen tey ndiasan ndiasan di dekk ñaan di dekk tariqa di capitalu xadria si senegal lolou ñëpp xam nañ ko eh, am nañ histoire duma ci si jaar ndax eh, ñi ci dess dinañ am luñ ko wax mais di kontaan rek yéen ngi tey ëttu mambu mamadou kunta suma wajur man maay tawam maay khalifa maay xalifaam ñu leeral ne la am na xarit général boo xam ne nag moo ñu yilif ñun ñëpp mun bekkaay at bekkaay mu ngi fële sa mais kër gu nekk nag ka fa xalifa baay kon dang ma wut fi alaaji ci wàllu këram kon nag di sant yàlla di kilifa kër gi di kilifa xale yi ak taalibe yi fi dal ngeen ñëw di ñuy wax suñu mbégte rek parce que dafa dafa xaw metti damay wax ne ki jël paas jóge fenn bàyyi confort am ñëw seet si la kooku moo am ndam waaw ñoo bokk ak yow tumuranke bi bokk ak yow xiif bi ndax kenn mënu ko matale ndax xamoo ku nekk moyens yi matuñu kon na ngay def li nga mën rek te koo fàtte nag mu ne ma ñu ñaan yàlla ñëpp kontaan daal su ñëpp kontaanee ah yàlla dina kontaan macha allah te yàlla su kontaanee loolu lañ ci wut euh, kon nag kontaan nañ baax bi ngeen ñëwee déplacé wu indi support de communication pour jàllale suñu wax si sëñ Fallou 29 la tok ba 73 la doog génn àdduna sëñ Babacar 22 ba 57 loolu ñu xam nañ ko sëñ Fallou xam nañu ne 1945 la ba 68 hein mu noonu mais ñooñu ñu bokkon jamono ngank euh, di euh, di di diine ji muy évoluer nak ndax taw taawu Cheikh Souleymane dafa tabax étage bo xamné ne ñetti téeméeri néeg la ak euh, fanwer ak ñett. étage baa ngi nii mi ngi daanu na foofu la gàmm yëpp daan am moo amoon premier étage deuxième étage tabale yi di dal foofu la dëkk bi nag bi ñu ñëwee moom bi mu gaañoo ki ko remplacé moo suma maam moo jur suma waajur moo ko yaatal lotissé ko dëkk bi nag di yaatu tànt yi gën a yaatu yu fi gën a yokk mais ñuy daje nag guddi gi di ko màggal benn place di def cérémonie officielle euh, loolu yàgg nañu koy moderniser di ko moderniser Cheikh eh, ginnaaw suma maam boobu yàggu fi moom deux ans et demi Cheikh Sidi Yaxya ku baax la moo njëkk tabax jumaa Ndiassane moom am na fukki at ak benn moom tamit def li mu mën dajale taalibe yi delloo leen ci yàlla eh, organiser waat kër gi mu jóge fi en quatre-vingt-sept baay bu mooy caatu Cheikh Mouhamed Kounta jël def na fi dix-neuf ans moom moo gaañu en deux mille cinq sama waajur jël deux mille cinq ba 2018 mooy sëñ bi njëkk a toog comme sëñ Mansour ni mu ko defee Tivaouane comme El Hadj Baara ni mu ko defee Touba euh, ñu bokk nag génération ñoom ñoom ñoom ñooñu bi ñëwee nag am na ay innovation mag ñi def nañ seen liggéey bi sët bi dañoo dañ see yokkaat xorom Ndiassane koo ko xam xam ne dafa mel tàgg picc mais ñoom ñoo ko yaatal voirie bi gis ngeen ko équipement bi gis ngeen ko résidence bi. waxuma ñun ñoo daxal Sénégal de mais mais bokk na ci nit dax waaw euh 1 milliard 200 millions équipement meuble rek 500 millions la genn wàllu milliard meuble rek ci sama bay ko tabax bay ko fi bu fa nangu dëkk nag so waxe mu ne dinañ mësa am khalifa bo xamne euh du fi am kër te or na am fu mu dugg loolu moy sababu résidence mais résidence xale du fa dëkk euh pour gan la biñ ko defoon nak moy président Macky Sall nañ ko wax. defal ko nak lu bari mais ñu suñu bos lañ xam suñu bos moom dal taaru na ndax su nekk bâtiment bo xam ne juróom fukki climatiseur ma nga fa am ay salle de réunion am ay salon privé prévoir nañ fa sax presse bi télévision mu ngi télévision bi ak euh, radio bi Ndiassane FM ak yoyep lolu loolu ça veut dire vision la te daf ko def sur budget bopam dara obligé wu ko mu tabaxal kër yi ay ay kër këru këru gan kër yooyu lañ kër mag moom ku mag rek da fiy toog mais mooy kër Cheikh Bou ndax Cheikh Bou moo tax Ndiassane am su ñëwul fii ñun du ñu am su desoon ndànk tey kon ndànk la ñuy dem di ziare mais moom moo jóge foofu yàlla jàppale ko mu ñëw créer village bi en 1883 def li mu fi def jaam fi yàlla 14 1914 la génn àdduna Cheikh Al Bekkay taawam bu baax ba remplacé ko génn àdduna 1929. ca bekkaay boobu mooy waajuru xalifa bi fi nekk léegi moo tax ñoo wax bekkaay bekkaay bekkaay doom dañ ko duppee baayam doomu bekkaay tey daanaka ci doomu ca bekkaay moom moo ci des am na beneen jigéen bu ko mag sax mais kooku jigéen la euh, kooku moo fi nekk bi mu fi jógee Cheikh Sidi Lamine toog Cheikh Sidi Lamine nee nañu dafa gudd ak xilaafaam ñëpp moom lañ xam d'ailleurs te ñu wax ne aussi Ndiassane yàlla daf leen jagleel li ñuy tudde làkkat suñu talibé ay lakka ñu ci ëpp ñu xam ne gambi Gambie ñu ay sosé di joggé Mali ba loolu mo créé sax chemino yu yu bari nekkon euh, Thiès ay bambara bari nañ ci ay bambara moy mooy conducteur de train kër mbambara hein ah? loolu moko indi yakana ci walu batin la ndax xet bu nek war nga am kuko jité ak ak yakar ñom so leen waxe ñu leer gi lañ top top raay bi ba yegg fi quartier Mbambara moo fi nekk ñu ñëw jax soog ñun soo demee ba Thiès am na quartier Mbambara parce que ñoo ñu ñoo fa nekkoon di jóge Ndiassane ba am fa liggéey sam fa ay kër dëkk dëkk fa nekk ay Sénégalais macha allah moo tax éclatement Mali bi mu amee méttoon na trop famille dañ leen diviser parce que am ñu ñu delloo Mali temps Modibo Keïta ak Senghor loolu benn benn pàcc la xam naa historiens yi dañ si dañ si gën a ñëw mais Ndiassane daal bénéficié wu na ci présence su Bambara yi si chemin de fer Dakar Niger. Euh, moo tax étage bi euh, ñoom ñoo ko gën a ñoo ko gën a tabax di jóge cees ak seen xarañ ak matériel chemin de fer ñoo tabax étage yu Cheikh Sidy mu boobu mi ngi dem nag étage bi mi ngi dem parce que entretenir ñu ko la fa daan am amatu fa pratiquement léegi mi ngi dem mais monument la si islaam borom étage bi soo waxee mu ne dama ko depp taaru islam bi mu fi jógee suma maam moo toog mais deux ans et demi la toog mais moo lotissé dëkk bi. mu joge fi Cheikh Sidi Yahya bima len don wax mu tok fukki at ak ben mais dafa defaraat jikko yi kooku bay bu ñew nak di borom alquran di tap joxe rek la xamone gaay yi ñu 2005 doomu Cheikh bu yi jeex Sidi tok sama bay mu njëkk tok def na fukki at ak ñaar sama bay nag avantage mu amone moy def euh, àndoon ak mag ñooñu xam leen am na xam sax maguñu ko mais dom la won par rapport ak ñooñu am vision nak ndax dafa jaxasoo na waa Tivaouane ak waa Touba ci wàllu teraa nga xool moom dafa am inspiration ci loola ndax xaritu Cheikh Ahmed Tidiane ak Maktoum la woon dañoo niroo woon soxna Asukan di ko jël si muy wéetal seen Cheikh foofu dafa pantere boo xam ne ñoo ko bokkoon pantere boobu ku fa dugg rek moom nga sa dëkk moom nga sa taarix dañ ko seetlu ah, ah. bon euh, ànd boobu rafet lool ñu am. suñu maam bu ñu wax maam Marème Kunta sëñ Babacar jël ko dëkk étage baa ngi foofa ci Tivaouane ku ko xam ñu xamul nag xamuñu étage ba Tivaouane la ñuy wax beneen bi tudd Kaolack dañ daan jóge foofu sëñ Babacar fu mu nekk ñu ne ma nga Ndiassane wala ma nga kawlax te boobu Kaolack la ci biir Tivaouane Ndiassane ci biir sëñ Babacar xalifu Cheikh Sidi Lamine la woon daan na ko wax ne dinaa toog samay étage yow nga toog sa étage ñu séenante dafa mel ne loolu réalisé nañ ko ndax takkaloo nañ soo jaalee fii man xaw ma Tivaouane fu mu commencé ak fan la fan ànd boobu di mu di ànd wu rafet ba léegi ba fi ñu toll nii ànd boobu mi ngi mi ngi mi ngi doo gis werante doo xë amul xëccoo te ñaari seen ñu bokkul taarix dëkk fen te xoloowuñu xëccoowuñu taalibe xëccoowuñu suuf bariwul de te loolu donc ànd ànd bu rafet la ba ci gàmm gi gàmmuwaat bi ñuy def Seydi Hadj Malick moo ko suggéré Cheikh Bou Kounta ne ko sëñ Bou mu ne ko naam mu ne ko teñ ko def ñaar ndax dafa am ñu bëggee dem Tivaouane ñëw Ndiassane am ñu bëgg a jógee Ndiassane dem Tivaouane yow teg maa bàyyi ma màggal juddu bi yow nga ngénn sa maam loolu xool lu lu koy wax si tubaab métaphore métaphore la cest euh, ju jëm bu jëmmu di waxal boppam mooy loolu xool ma loolu kuñ ngénte sa maam loolu mooy dox moo tax Tivaouane su jàppee bis ba rek bis ba dellu see ñu ñu ñu ngénte duñu xool sax su wer feñe suñ ko déggé ñu wax ko rek ñun tam ñu ñu ñu wor suñ ne gisat nañ ko feñ na ñu wor ñu wori musu ñu ak ñom problème lu and and and and bu rafet and bu rafet te lool moy dox ba légui te dama leen ñaan ngeen si insister bu ñu insister ci waxu ñen ñu comprendre mais ñu insister ñi am ben culture xam and rek mo rafet and and rek mo mo war man man lu la juddo lu la gëm ñu nek ben joxante loxo te loolu la ñuy doxal ngeen yëg ko ngeen bañ ko yëg téléphone baa ngi fonctionné de teraanga yi ñu ngi fonctionné su gàmm amee ña nekk fële dinañ jël ay teraanga yu mag lu mën a yor gàmm gi ñoo jox ko jox ko seen nawle njaasaan tamit noonu kon nag ñu ngi ñu ngi joxante ay teraanga fàttewuñu lu xew ñun balaa ñuy tudd kenn ne ñi ñi dëkkal Tiwaawan balaa ñuy tudd kenn daan ne njaasaan gi nekk suñu wet loolu loolu loolu dafa am solo ñu doxalee ko noonu tey nag bisu njaasaan la vraiment muy muy ngénte boobu ñuy wax macha allah am ñeneen ñu koy def di ko tuddee gàmmuwaat euh, noonu la gàmm su amee ñu ànd ak ñoom bis bis bii nag ñu ñu defal ko suñu bopp ñëpp di fa daje gàmmu sous régional la mooy région bi mooy ñëw région bi nag su ma ko waxee mooy euh, Mali Mauritanie Burkina Gambie ñëpp dañ fi teew ku génn léegi gis marché malien marché malien amul fenn fu dul Ndiassane waaw loolu spécificité Ndiassane te yàgg na léegi ma téeméeri at. lu tuuti la woon ay jàll ñu toog ci buntu ay kër di jaay léegi léegi marché la te xam ne dina gën a évoluer waaw du ma mën a guddal ndax am solo bi rek mooy kàddu gi ak rafetal ak wax ak lu baax ak ñaax taalibe yi ne leen nañu gën a góorgóorlu jamono dafa changé jamono su changé taalibe lay changé taalibe am na neneen lu ñu war doxalee nañ gën a jàpp nañ dellu ci yàlla li fi nekkoon mi ngi fi nañ ñaan suñu borom nañu jaamu suñu borom nañ nañu julli si yonent bi lu gëna bari suñ ko défé rek talenté loxo jappalanté kenn bañu fat sa morom loolu loolu lañ def di ñaan xañ sa bato pas trop tard tamit ñii ñëw euh, chauffeur yi daw ndank rek da accident yi dañ leen di faral nemmeeku ci bisu melni mais daw ndank dal ndank rek dañ ko bëgg wax def attention baña yakamti nit mënul jël lu lu wërsëgam kon nag ñu ngi nonu ñu ngi équipé wu xañ na dinañ toog ba am garde routière bu moderne yëf yi da gën a dox di ñaax taalibe rek ñu gën a jàpp dundal daayira yi fonk nag keneen ku dul seen sëriñ parce que soo yemee sa sëriñ rek perte nga ndax kay faj sa ayo en général sax du bokk joo yow tarix mais fa nga bokk nag il faut nga bokk fa ndax soo fa bokk da ngay génn xeet fekk say maam dugg de da def mais bu tëj ubbil tàllal sa loxo ñeneen ñu mel na yow nga respecté leen ñu respecté leen loolu mooy doxal ad mooy doxal euh, euh, islam bi kon nag jërëjëf ñu ngi leen di sant bu baax loolu mooy message bi nga xam ne vraiment war naa ko mën lancer jërëjëf.